laayeen famille omarienne boo yàggul sax ci église bi parce que wane woon naa ci sama page Facebook suñu maam suñu nijaay abbé Jacques Seck mu doon jël sa carte de membre d'honneur de Jamra donte le bokkuñu diine mais nu partageons les mêmes valeurs kon Jamra loolu rek la du leneen wootewuñu diine wootewuñu tarixa wootewuñu daayira ay doomu réew mii la ñu joxe seen bopp seen seen joxante seen loxo bopp dal di ittewoo sàmm ndono rafet li fi mag ñu baax ñi bàyyi muy mag ñu baax ñi tëdd Touba Tiwaawan Njaasaan Canaba Ñaseen Medina Baye Laayeen famille Omarienne ndax ñu baax ñooñu ku ci nekk si ñoom bi ngay laata wuy ji sa borom jëf nga bàyyi fi bind nga bàyyi fi wax nga bàyyi fi kon ku jóg naan war nañ leen a fay bor waxi taalibe bu xër la rek ndax koo xam ne moo la génne ci lëndëmaayul jahiliya indi na ci leeru silaatul mustaxim koo xam ne moo la xamal xaala laahu yàlla nee na xaala rasulullah yenent bi nee boo jógoon itte woo ne da nga koy fay bor weer bu jot nga jël sa intégralité salaire boole kaa conteneeru or ak i jamaa du tax nga mën a dab boru xaala laaw xaala rasulullah comme que ma ñu ñu leen fay bor nag lan la ñu mën delloo leen jukkal delloo leen jukkal mooy lan mooy li ma nettali léegi rek joxante loxo ak si ñaay mbokk taalibe ngir sàmm ndono liñ fi bàyyi seq ndono li sàmm ko aar ko ba ku ko bëgg xajamal mbaa nga bëgg ci xëpp suuf ak koo mën a doon lobby góor jigéen lobby franc ak lobby yiy laqatu derrière les producteurs de série di fa jàllale des messages subliminaux de promotion de l'homosexualité de l'adultère et de la fornication lobby bu mu mën a doon ba ci lobby foo oustas yi nekk ci réseaux sociaux yi di def de la pornographie verbale ak lobby artiste bu mu mën a doon di profiter de de de de de ta notoriété pour di jàllale ay messages yuy yàq jikko xale yi lobby boo mën a doon laa wax ñu daal di ittewoo jàmmaarloo ak yow mu jaral ñu lu ne loolu mooy suñu taxawaay suñu choix la nag te on assume li ñu ci fekk yépp góor jigéen yaa ngi saaga lesbienne yaa ngi saaga des salopards comme ak Akhenaton nekk fële ca euh, diaspora ba laqatu lâchement derrière son clavier chaque fois bu def Jamra dafay jàlloore dans le renforcement des sanctions pénales contre les trafiquants de drogue surtout bi Jamra criminaliser la yamba e le cannabis mu gën a rakkaaju ci suñu kaw ci saaga ba Jamra demee seeti ministre de l'intérieur pour dénoncer la délivrance illégale de 16 récépissés à des associations de góor jigéen et de lesbiennes Akhenaton dalaat ci suñu kaw moo tax ma ne ko yow war nga wax foo bokk bu Jamra attaque góor jigéen yi nga dal suñu kaw bu Jamra attaqué trafiquant de drogue yi nga dal suñu ko war nga fanga fa bokk fa nga bokk nag yow xam nañ ko sa baay tur wu tedd bi mu la tuddee muy Ousseynou Ousseynou Seck nga tudd kan mooy Ousseynou Seck Ousseynou Seck Alioune Abi Talib di saaba yonent bu tedd boobu te jàmbaare suñu borom may ko doomam bu mu bëgg ci xolom di Faatumata Zahra bintu Muhammad mu am ci ay seex di Assane ak Ousseynou cosaan yi tur ba fa la jóge sa bàyyi tuddee la tur bu tedd boobu Ousseynou Seck nga fab tur yi sànni ko sa xaj daal di wane ne taalibe Iblis nga jël tur turu sëtu na bi nga xam ne moo waxal boppam ne jaamukatu jant bi la mooy Akhenaton mooy le soleil est fier de son adepte nga daal di jël tur woowu nag def ko sa bopp muy sa surnom sànni sa tur julli sa xaj moo tax nag yow loo xas jamra du ñu metti du ñu bett parce que ku bàyyiwul sëñ mun Muntaxa bàyyiwuloo sëñ Babacar Si Mansour bàyyiwuloo maanaam kilifa diine yu tedd yépp yi nga xam ne ñoo fi toogal Bamba Maodo Baye Niass Baye Laay boo jógee di attaqué jamra parce que jamra dafa criminaliser yamba ak cocaïne du ñu metti soo jógee di attaqué jamra parce que jamra dafa dénoncer la délivrance de 16 récépissés à des associations de góor jigéen yoo xam ne dañ koy jox Euh, dañ leen jox ay récépissé de manière illégale en violation de l'article 319 du code pénal en violation du code des obligations civiles et commerciales ba Jamra am ndam ci loolu parce que les récépissés sont sur le point d'être supprimés kon boo jogee yow ak Akhenaton di ñuy saaga ci jaloore boobu du ñu metti waaye nag ko ci barma ne na ko wax feeñ alors kon nag benn exemple lobby ngoogu parce que moom dafa am ay lobby yu nekk ci ginnaawam moo tax moo infiltré beaucoup de partis il avait d'abord infiltré le PDS détourné fa xaalis bu bari ci ay vente de cartes ci ay euh, xaalis bu Ablaye Wade joxoon joxoon pour faciliter les inscriptions des militants euh, sur le fichier électoral seeni pass ak yooyu te ñu euh, pour qu'ils s'inscrivent dans le fichier électoral waa PDS dàq ko mu transhumé dem APR mu jóge APR transhumé Pastef Voilà un homme dangereux qui passe son temps à infiltrer les partis parce qu'il est en service commandé pour le compte de lobby obscur yoo xam ne bu ñu demee ba ca kanam Jamra dana ci génn ay révélation yoo xam ne dëkk bi dana yëngatu dama la doon avertir nag yow Akhenaton comme que tu as tu, tu, tu n'as pas la lâcheté de venir ici au Sénégal pour def say ñaawteef waaye toog à des milliers de kilomètres ma di la yëgal ne que ça ne passera pas parce que tu sais très bien que tu es sous le coup d'un international tu sais très bien que au niveau de la brigade de cybercriminalité am na au moins 15 plaintes yu lay xaar di ay gor yoo xam ne yàq nga seen der ci lâcheté làqatu fële rek avec tes copains góor jigéen tubaab di attaqué ay gor fii ci dëkk bi voilà kon nag taxawaayu Jamra loolu la lobby yëpp lañu fa fas yéene jàmmar lool képp koo xam ne yaa ngi taxaw taxawaayu euh, euh, jalgati ak nappaji suñu ay valeur alors ci noonu suñu taxawaay dafa dëppoo rek ak lii chariatul muhammadiya sas jullit bu ne sanga bu tedd bi nee jullit bi ginnaaw ba nga matalee say juróomi ponk shahadaat waxtu wi juróom woor weeru koor joxe azaka ak aji màkk bu la ko sa poos ak sa wér bu yaram maye ñu ne ko ah sanga bu tedd bi ku matal loolu yëpp xanaa wax dëgg yàlla wàccoo nga mu ne déedéet liy mottali seen jullit dëgg mooy ngeen gànnaayoo ñetti posture yi ñu ne ko lan mu ne boo gisee luy raam jëm ci penc mi te nar a yàq jikko yi walla nga gis luy raam jëm ci pénc mi te nar a gàkkal malaanu lislaam nee na waajib la waajib mooy obligation la nga opposé wu ci ñu ne ko naka mu ne fi yaddihi par l'action bu jàppandiwul nee na fi lisaanihi nga wax nga alerte nga dénoncé su jàppandiwul nee na fi xalbihi nga naqar lu ko soxal ba suñu borom xam ne danga néew doole rek waaye naqari na la loolu mooy mottali suñu njullit Jamra fas yéene ngoy ci loolu et c'est ce qui explique depuis 1983 nos différents combats di ci gën a tar nag def naa ci émission télé yu bari mooy suñu jàmmarloo avec la loge maçonnique de Dakar ndax ñun ñoo leen dénoncé ndax dañu bëggoon jalgati jàngale ci Amadou Bamba nappaaje jàngale Seydi Hadji Malick Sy xajamal jàngale Cheikh al Islam Baye Ibrahima Niass ak bu Seydina Limamou Laye ñu dénoncé leen démasqué leen c'était en 85 ñi ci bari si yéen xëy na xale la ñu woon wala juddooguñu woon mu metti leen ñu porter ñu plainte plant bi nag dafa mujjul fen ndax ba ñu jàppee bésu procès yàlla dogal ñeenti xalif généro fu xataraayu taxaw à nos muy sëriñ Abdoul Ahad Mbacké ce jour-là moo ñu boole ak kenn ci loxo ni jorom ku ñuy wax Serigne Mountakha Mbacké Bachir mooy ki fi toog tey ndax ba ñu def suñu tournée nationale ba ñëwee Touba oto bu xant boobu ñu yoroon benn 604 dafa ñëw ba egg Touba rek coulé di yàlla sëñ Abdou moo jox ndigal sëñ Abdou Lahad moo toogoon si jal bi en 85 moo jox ndigal sëñ Mountakha sëñ Mountakha ba ñuy laata jógee Touba jël na oto jox ñu jël cent mille francs de bon d'essence jox ñu ne xaw ma kan de waaye seen combat bi contre la loge maçonnique de Dakar na ngeen xam ne Touba mu ngi seen kanam. seen ginnaaw seen nijoor ak seen càmmoñ ñu bénéficier aussi di soutien de Baye Seydi Thiaw Laye njabootu Seydina Limamou Laye bénéficier également du soutien de Mame Abdoulaye Sy Dabakh d'ailleurs euh, yéen jeunes yi ba léegi boo leen duggee ci YouTube euh, ngeen tàppee Mame Abdou Aziz def espace franc-maçon xutba ba mu defoon pour soutenir Jamra dans la perspective du procès contre la loge maçonnique de Dakar xutba ba mu nga fa ba tey ñu daan leen jël bu set wicc assorti de la fermeture de la loge satanique euh, de, de, de la des francs-maçons de Dakar te nekk fii ci ginnaaw assemblée nationale. Jamra moo xeex loolu suñu choix la dégg nañ ci lu ne on a risqué nos vies euh, euh, dépense itam suñu xaalis jënd ay jël ay avocat c'est notre choix ba tax na. waa ci loolu laa jëm damay def sama introduction ba pare alors ba tax na suñu yeneen i combat mënuma ko citer ba mu jeex parce que y a ouvrage qui est en préparation bu ñu tuddee jambra 40 ans de combat et de réalisation concrète euh, maa ngi saluer waa Thiaroye amoon na fa njombe lu rëy bu fa amoon benn benn benn quartier bu tuddoon xurum bukki loo xalaat ci ñaawteef ci Sénégal foofu la concentré woon trafic de drogue prostitution et cetera waa Caaroy ñoo ñëw soñee Jamra ñu ne leen ndimbal da nga ciy fekk loxol borom dama ko tënk rek ñu ànd ak ñoom dàjji baraagu caga yi y avait des prostituées ghanéennes sierra-léonaises et cetera dajji ñiy jaay ay ndamsaanu sum-sum c'est du vin frelaté extrêmement dangereux daj yëpp indi ko sur la place publique xëcce mat la yeeg bi fay def ci sur la place publique sotti essence taal ko ba mu nekk dóom ilimaanu jàkk ja jiite ñu ci place publique bi ba ñu pare ñu sant yàlla ba pare rebaptiser quartier bi tuddatul xurum bukki sant yàlla la tudd boobu ñu ngi toll si ñu diggu ndaw boobu amul ay plainte amul dara dañ daan dem xeexi c'est en 86 87 88 kon nag njàmbaaru jeune quartier xurum bukki ak dogu bi nga xam ne moom la jeune waa Jamra yu dogu moo tax ñu joxante la ko xeex mafia boobu nekkoon xurum bukki ba pare changé turu quartier bi mu tudd léegi sant yàlla du Jamra rek ko ko def mais dañ ko def en partenariat avec les jeunes du quartier waaw loolu mooy mooy suñu combat de toujours en disant que euh, ci combat boobu tax na ñu may bët tous les porteurs de voix et c'est notre droit le plus absolu muy ñiy yëngatu ci showbiz bi ku fi jóg di utiliser sa notoriété sa célébrité ak cofeel bi xale yi am ci yow topp la defi ndiiraan ku fi jóg di profité ci loolu dem di digaale ji avec des lobbies extérieurs lobby yu lëndëm ñuy jaarale ci sa jëmma jooju des symboles de propagande maçonnique u LGBT dinañ jog jàmmarlu ak yow muy Youssou Ndour ak Baaba Maal ak Ismaïla Lo ak Wally Seck ak Pape ku mu mën a doon c'est notre choix parce que penc mi yéen artistes yi moomu leen ko da ngeen ko bokk ak nit ñi amu leen benn droit ci kaw yéen ñu bëggal xale yi di ci profiter di digaale avec ay lobby yu lëndëm yu nekk bitim réew yuy profiter si seen jëmma di fa jaarale des messages subliminaux maçonnique ou homosexuel on ne l'acceptera pas ku mu neex nag ci penc mi nga dam ma solo si daay na lii day kenn mën ci dara ci yàlla ci yàlla oui monsieur ñun on le fait pas dañuy xool li ñu yoon may ñu jóg dal di jàmmarloo nga yow en toute légalité nag alors ci noonu balaa ngeen di ñëw ci question yi euh, en ce qui concerne Wally Seck suñu jàmmarloo ak moom ça ne date pas d'aujourd'hui bi fi Wally Seck langalee saagu jigéen sac de femme porté par un homme qui a une tendance homosexuelle en Occident kan nga dégg ci ñiy coow tey dàll bi t-shirt bi kenn waxul Jamra Cotte moo monté woon au créneau madaa woo ndey ja ndax dañu nekk ci dëkku dëkk bu yëw qui est profondément ancré dans ses valeurs dañu ne sa corps bu tarxisee lislaam bëggul nga ne bëri dem sa penc ma di ko xalab l'islam bëggul loolu da ngay jiital baat boobu nga xam ne si coow Ahmed Cissé répété naa ko fii ba mu boy ci nopp yi waaye yàllaa ko wax du waxi jamra wa amruhum shura baynahum suñu borom moo ne yéen jaam yi da leen di farataal shura shura tubaab di ko wax consertation wolof di ko wax diisoo loolu laa defoon ak Wally Seck en 2016 yaay jënee ma dafa tukki tukki bi bëgg a yàgg jamra def déclaration mais ko yow Wally saak bii nga fi bëgg a jàllale te ki nga xam ne moo ko sos du nit ku baax muy la rappeur Kanye West du nit ku baax ndax ku dem ci sa page Facebook nga définir sa bopp ne j'ai conclu un pacte avec le diable du ku baax ndax ku dem ba sa clip yi ngay jàllale d'ailleurs ku ko weddi bu bu ñu paree daje bi nga dem ci YouTube vérifier ko chaque fois bu way wi jeexee balaa clip bi jeex dernière seconde bi slogan boobu ñëpp a xam nañ ko mu di I sold my soul to the devil g vendu mon âme au diable maanaam man nii kenn we sama ruu gi jaayar jaay naa ko Iblis kooku royukaay la ñu ne ko kooku nag comme que moo fi lancé saagu góor jigéen bi wala mu bokk ci ñi ko lancé yow Wally ñu ngi lay yëgal ne loolu dencaat ko parce que ça ne passera pas ici au Sénégal daal di defar suñu plainte boole ko ak preuve yëpp yu wane ne kii c'est une tendance homosexuelle en violation de l'article 319 du code pénal bi nga xam ne non seulement xaraamal na les actes contre nature waaye toute action qui va dans le sens de faire une propagande LGBT ñu daay defar suñu plainte ci noonu la Wally jógee voyage ba mu jegee voyage avant ñuy déposer plainte bi ñu dolliwaat beneen déclaration nee ko yow sa saak bi mu ngi ameel ak penc mi ndax déjà sa fans yi am na ci ñaar presque baa ngi relaté fitna ji mu leen dikkal kenn ki fii la liberté 6 les deux voies parce que fans dafa metti soo amee benn idole boo xam ne da ko adoré lu mu def rek da ngay gëmm rek imité ko bu bu bu xurfaanee sax nga di ko tisolil waaja romb di langal saagu góor jigéen bi romb benn groupe mécanicien gars yi ne eh góor jigéen la dóor leen dañ ko dóoroo dóor ba dañ ko mujjee rawale hôpital loolu lu ko fi jar la même scène s'est reproduite fii ci weti hôpital dalal jàmm lom romb ay góor ñu dóor ko parce que comme que dafa takk saagu kenn wees te saagu góor jigéen la ba dañ ko mujjee rawale dugal ko hôpital Dalal Jàmm lu ko fi jar alors naka noonu bi ñu yëgee ne waalee ngi woote concert fii ci Grand Théâtre waaye ñun taxuñu mu woote concert bi daf ko programme de longue date dès l'ouverture de de de son concert yéen ñëpp a ko gis télévision yi teg ko en direct mu jël ciseau bu bees peq jël saag bi dagg ko en mille morceaux coow saag bi jeex loolu fa ngeen xam ko pour ngeen comprendre li xew tey ndax ñun ba ñu dalee jóg di may bët artistes yi bëgg a yàq xale yi volontairement ou involontairement du tey ça c'était en janvier 2016 alors ba mu daggee saag bi ñun ñu retiré plainte bi bi nga xam ne ñu ngi ko doon bëgg a déposer à la brigade des mœurs mais dañ si teg ñetti at rek waa Wally Seck def lu gën a garaaw saag bi mu di le fameux t-shirt LGBT mu ngi jël prétexte que Sénégal équipe Sénégal dafa gagné la sélection nationale ougandaise Wally Seck ne dafay joxe contribution ci victoire bi sous forme de euh, sous forme de concert gratuit bu muy def fii ci boulevard Général de Gaulle ba pare dem sol mandarga bi nga xam ne mooy drapeau góor jigéen yi àdduna wërngal këpp muy le t-shirt parce que effectivement ni Sénégal amee raaya muy drapeau vert jaune rouge ak étoile bu verte ci digg bi France am bosom bleu blanc rouge États-Unis am des bandeaux bleu euh, blanc bleu blanc ak 50 étoiles ci angle bi représentant le 50 états et cetera et cetera góor jigéen yi qui se sont démarqués de la société dañu am seen drapeau bopp qui reprend l'ensemble de couleurs des autres drapeaux des autres nations moom la ñuy tuddee le drapeau arc moo tax noonu ni mu amee drapeau arc noonu la amee t-shirt arc-en-ciel parasol arc-en-ciel euh, bracelet arc-en-ciel sol loolu coow li ne kur ci dëkk bi fekk man j'étais en déplacement euh, ba ma jógee voyage rek ci laa ñëw yem ci coow li ma daal di jëfee li suñu borom wax ne jullit bi bu jiwam juumee na nga def ak moom suura waaye surtout ma daal di tenir compte des critiques yi ñu critiqué woon Jamra en en janvier 2016 en nous disant waru leen woon plainte pour affaire u saag bi dangeen waroon jiital waxtaan du loolu la ñu wax man ma jiital waxtaan woo yaayi Waly Seck mu ne ma dafay nelaw waaye bu yeewoo dinañ ko wax mu rappelé la ci diggante bi jabaru yi jël téléphone bi ñu daal di jàmm sante ba yàgg mu ne ma sax bu bu yeewoo danaa ko wax mu woo la ba mu yeewoo moo ma ne ko Wally sa t bi du yëg nga coow li mu jur ci dëkk bi ma ne ko maa ngi ay capture d'écran deux sites góor jigéen bu hollandais ak benn bu euh, bu belge ñu ngi lay gërëm nee nañ ah waaye ndax yàlla ñu am une visibilité dans un pays réputé conservateur comme le Sénégal kon à travers jëmm ji di Wally Seck suñu symbole bu mag bi di la couleur arc en sol na t-shirt bi kon daal ñu ngi ko ciy sargal mu ne ma ah ma ne ko waaw ah, boo bëggee ma yónnee la ko waaw ma ne ko nag yow bu fekkee da nga doon màggal victoire u Lions yi contre Ouganda lu la teree woon sol drapeau Lions yi maillot Lions yi bu dee da ngay màggal victoire Sénégal contre Ouganda lu la tere sol drapeau Sénégal waaye lii nga sol ñaari problème la benn bi c'est le symbole de reconnaissance de la communauté LGBT mondiale deuxième problème bi ci ne yaa ngi ko sol au mois de juillet en pleine semaine de célébration des Gay Pride Gay Pride c'est la parade homosexuelle c'est le congrès homosexuel bi nga xam ne góor jigéenu àdduna wërngal këpp ni liggéeykat yi di défilé le premier mai ñoom ci la ñuy défilé période boobu nga ko sol loolu neexul a défendre waaye nag ci gàttal yàgg nañu téléphone maak moom ci gàttal mu daal di waat sur tous les saints est-ce que dëgg la ci moom du dëgg si moom suma yoon newu ci loolu digganteem ak boromam la il a juré sur tous les saints ne ba muy sol t-shirt bi xamul woon ni boobu signification la am waaye mu ne ma tonton tu peux compter sur moi t-shirt bi dootoo leen ma ci dégg. coow t-shirt bi jeex fekk dans la même période Wali avait port plainte contre imam Ahmadou Makhtar Kanté parce que imam Kanté dafa demoon ci page Facebook am am lu mu ko tuumaal ci wàllu borom ñaari tur Wali porté plainte bi ma Wali joxe engagement ne dootul jël t bi nag ñun ñu profité ci def déclaration ne dinañ dox tànku jàmm entre imam Kanté ak Wali bi ko bàyyi Thione Seck de bàyyi Wali jéggee déggee di Thione Seck moom moo jël téléphone am woo Mouhamadou Moustapha Sy qui est le trésorier national de Jamra ndax ñoom ñaar ba ñu nekkee ay xale ñoo bokkoon benn équipe bu nawetaan bokk groupe bu xale yuy fo euh, ils ont grandi ensemble à la Gueule Tapée à la Médina mu woo ko ne comme que yéen Jamra da ngeen ittewoo jàmm wax dëgg yàlla ñun mënuñu leen bañal dara léegi maa ngi nii dama def damay damay def ni benn point de presse pour annoncer le retrait officiel de notre plainte contre Imam Kanté waaye bu ma sañoon yéen Jamra ngeen fekke ko muy sama participation pour gërëm leen seen taxawaay bu rafet loolu moo ñu yóbbu woon kër Thione Seck mu daal di def discours bu rafet gërëm Jamra jox ma parole tam ma remercier ko mu daal di jeex waaye ba ñu génnee les mêmes hypocrites yi nga xam ne ba ñu defee plainte contre saagu góor jigéen ba waali doon langal te mu jegi avant ñuy déposé plainte bi mu daggat ko ba mu jeex ba ñu naan ñu waru leen woon plainte waru leen woon plaint da ngeen waroon jiital waxtaan les mêmes hypocrites ya nga xam ne bi mu solee euh, t-shirt bi ñu ñuy wax naan euh, waru leen woon euh, waru leen woon jiital waxtaan ñoom ñoo ñëw dal suñu kaw ne waru leen woon dem kër Thione Seck waru leen woon wax ak ñi ndax ndax duñu ay nit ñu baax <laughs> maa ngi message yëpp capture d'écran yëpp ma daal di nekkoon nag baax na àddinaa ngi suñu kanam c'était en juillet 2019 waaw comme que nee ngeen daal waruma fa woon dem waruñu woon jiital waxtaan incha allah beneen yoon yi teg dañ si teg ay weer rek le 12 juin samedi 12 juin 2020 waa lii di concert fii ci entrée grand théâtre ci esplanade bi ñaari feccakantam def fa njombe que tout le monde a vu mu di fóonante en public ci góor a góor ce qui est condamné par l'article 319 euh, du code pénal qui condamne les actes contre nature ce qui est condamné par l'article 318 et 324 sur l'attentat à la pudeur et l'outrage public aux bonnes public mooy boo ko defee entre quatre murs en en yoonu kenn newu ci mais dès l'instant ñëw nga ci penc mi loi ba dafay dal seen kaw ma ne nag comme que ñoom ñoo ne waruma woon dem kër Wally Seck waruma woon waxtaan ak moom bii yoon ma ne kon d'accord on a frappé sans waxtaan procureur jàpp ñaari fecckat yi tëj leen fëgg leen ku ne un mois de prison ferme les mêmes naa fekk jogaat ne da ngeen soxor c'est de la l'acharnement contre Wally Seck alors léegi nag coow coow euh, t-shirt bi ñëw ci aw t-shirt bi ñëwee ci aw pardon dàll yi parce que xame naa leen ak ñi may bind message ak ñiy intervenir dans nos publications ci Facebook ñooñu ñëwaat daal ne waaw loo leen xam ci affaire dàll yi mane ne foutez-moi le camp ñun duñu duñu duñu morso bant yoo xam ne dañu ñu kàll kàlle ñun on dénonce le sac alors qu'on était le seul à le faire déposer plainte xale bi ñëw dagg sac bi parce que il a reconnu qu'il a tort parce que c'est un symbole homosexuel ngeen ne dañu soxor waroon nañu euh, jiital waxtaan loolu ngeen waxoon ñu toog ba yàgg euh, affaire t-shirt bi ñëw ñu jiital waxtaan dem ba kër Thione Seck lépp ci rafetal ndax xale yi ñun ñëpp ñoo leen jur ngeen dal ci kaw Jamra diaboliser Jamra neen nous sommes des fumiers waruñu foon dem waruñu wax ak ñoom ñu ne bon d'accord ba beneen yoon beneen yoon jot il y a eu ce scandale-là de danse euh, obscène foonante góor a góor bi yoon waxat waxtaan ñu ñu dal seen kow procureur jox ñu dëgg fëgg leen un mois de prison ferme ngeen ne dañu soxor c'est de la diabolisation c'est de la l'acharnement léegi coow dal yi jib ngeen ne waaw lii doo leen ci wax ma ne leen foutez-moi le camp dem leen ngeen jëm ko régler seen bopp parce que hypocrisie moo yàq la société sénégalaise booy combattre des contre-valeurs di xeex pour protéger nos enfants protéger nos valeur ak ndono rafet li fi mag ñu baax ñu bàyyi ça doit être un combat constant waaye jam xamul indignation à géométrie variable c'est-à-dire bu la arrangé nga ne c'est très bien noonu la bu la arrangé wul nga ne waruloon wax ak moom da ngeen waroon porter plainte nga porter plainte ñu ne la da nga soxor da ngeen ko iñaane sa carrière alors ma ne leen nag comme noonu la yéen passer du bleu a orange du blanc au noir comme que yéen ñu gën a xam naka lañ ko war a régler dem leen Wally Seck ngoog dem leen ngeen régler ko donc voilà donc ce que je tenais à euh, donner comme introduction pour ngeen pour camper le débat euh, d'ailleurs sax am na beaucoup de vos questions yoo xam ne xëy na ci introduction bi ma def joxe naa si déjà un début de réponse waaye il n'empêche comme l'a di euh, Ndiab bi tey je suis à votre disposition pour répondre, répondre à vos questions, Inch'Allah.